ku ne xam na ne kenn say grand Pape Sarr tey police la police la jógee bi ak coow loolu est-ce que bataille psychologique bi tàmbaliwul. waaw combat moog coow ñoo ànd waxuma la combat sax mais lamb rek moog coow ñoo ànd ñun ci loolu lañ judd comme ni ñu waxee ñun dañoo judd fekk ci kër gi. Ah. kon coow du ñu jaaxal xam nga. ñu ngi nuyu ñëpp nag ni ñu dugg ci ay détails parce que ay mbër lañu ay mbër yu ndaw lañu ay xale lañu ñu dugg ci ay détails mais ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi xam ne ñu ngi sonn suñuy di leen nuyu bu baax a baax di leen wax ne gis nañ taxawaay bi waa Pikine lu ñu mooy supporter xam nag mobilisation bu dëgër boo ñaa nag moo ñëw def fu la fayda ak jom libéré gaa bi ñu ñibbi incha allahu rabi. waaw boo ñaa coow li bari. ndax sa da nga am adversaire boo xamante ni moom tamit champion la ci wàllu lamb di sa mag nga nekk ci a dem ñu ne ñu ne li coow li bari bari bari la dajeer benn daal bi ñu ko seen sama ndax booy la dajeer. waaw avant tout damay nuyu Eumeu Sène boobu mag. parce que dafa nekk si combat combat bi li ci des matul sax un mois. bu bàyyi lépp ñëw sama mag Eumeu Sène maa ngi koy ñëw yëpp. ñi ñëw tamit seen xel a ngi bi ñu ñëpp di bëgg ñëpp comme ni ko la dégg lu mu def ci làmb loolu yëpp yëfu boppam la ñun suñu yëfu bopp mooy ñu entraîné déglu suñu ay papa teg mbiri yoon te xam nga ni boo ñaa fu ko nit ko bee ay papaam amu ko bu ñëw ci géew ba ah. xam yoon bu soobee boo ñaa sa adversaire ne da nga taxaw te fii nga yem boo ñaa ne ko sama damaa teg sama jënu fande lu tàng jër te yéen ñëpp di ngeen ci am kaas wax jooju lu muy tekk booy ñëw waaw mooy ni ko waxee rek dafa wax delloo ma ma wax ko xam nga wax moom tontu moo koy fay. mais lu muy tekki booy. waaw dama wax ma ne ko man dama sama cin fonde bu tàng jër. te ku nekk incha allah naa la jox sa kaas. ñi ci jox naan géej bari na kenn yaa xam te di jaar ci kaas kenn di wax. waaw booy xaar sa kaas rek incha allah rabbi loolu sa kaas te à chaque sa biir carrière ndam yi ci gën a bëri géejawaay nga ko amee tey ngay ñaari tanoor des géejawaay ci li nit ñi wax lan da ngeen yéen a ngi est-ce que kon li ñuy wax ci mbedd bi est-ce que du mooy dëkk ci kaasu fonde. ci kaasu fonde yi Balla Gaye numéro 2. a man du ma communication de te du nit boo xam ne tey damay wax lii suba ma wax leneen damaa wax ni waa Guédiawaye làmb moo ma boole ak dañoo war a bëri def fulla ak faayda ay xale ñu ñoo bokk mbir mi mais comme ni ma koy waxee rek bu jeexee jeex na li mu moom kenn nag xale maa ngi sama yoon defaguma dara ci làmb xam nga maa ngi naag sama combat la dëgër moo taxaw ñu ngi koy ci la waaw boo ñëwee ci combat bi léegi suñu am na ñoo xam ne dañ ne combat bi boo sàgganee lu ma dix minutes lii mën na cee am ñu yaay xale bi yaa war a dem décanté situation est-ce que combat bi da nga koy baat rek gaawal bëri bi wala sa adversaire lu mu lu mu teg maanaam da nga koy fekk si juróom. waaw non lu may indi nag loolu samay affaire bopp la. la man ak ñi ma àndal. waaw adversaire bi moom ay affaire boppam moom moo ko xam mais jour bi daal incha allah lu ma mën a wax mooy day am combat bu neex. waaw bu ngeen fekk ci dafay gaaw mu ñëw yéex mën ngeen combat ni combat bi dafay mu ñëw gaaw mais li am solo mooy amateur bu dakk sa biir ñu xeex bu baax. pour diriger Boy Niang combat bi Lac de Guiers ak Boy Niang combat bi ñëpp di xaar amateur di xaar yéen ñaar xanaa kenn du ci taxaw. waaw loolu du ñàkk loolu du ñàkk làmb amee rek xam nga foo am ko diriger loolu du ñàkk mais dégg na ko li ma la wax dama ne suñu affaire bopp la waaw loolu suñu affaire bopp la suñu bagage bopp la. waaw Boy Niang sa adversaire bi ñu dénk ko. toogal mu ne. toogal toogal sa xam ko ci mën a teg ko suñu micro mu ne boo ñaar li mu mën a xeex lépp le treize lay xam ne mënul xeex loolu lan lay def ci yow. waaw dama lay wax rek ne la bu jëf ñëwee wax day def daal di toog xaar fi toll nii combat bi di def bëreetul yaa ngi dégg. préparation bi six mois wax na man wax naa fi toll nii moom dafa ñu nekk si ginnaawam muy waa Guèye waaye gépp dàgg ku nekk jàpp ku nekk def lépp. kon moom lu ko war rek mooy mu def fulaak fayda ak jom man tamit dafa am ñu nekk sama ginnaaw waa Pikine su ma mag su ma ay papa su ma ay xarit su ma ay doomu ndey maa waa Cité Popinière fi ma dëkkoon waa Cité 2 fi ñu defee open press bi mag riiriis di ko taaf Cité 1 2 3 waxi naan 1 2 kenn ginnaaw raay gëtoo mafia bi yëpp bàyyiwuma kenn boo ñu ngi waaj nekk sama ginnaaw kon lu ma war mooy def fulaak fayda rek incha waaw lu ma may loolu mooy ni boo nekkee xale ah. da jox cër say papa ñii uh-huh. mënu maa def ci làmb lu ñu def la ah, ñii bëri nañ fu nekk ànd ak sama papa dégool maa ngi koy nuyu mi ngi nii toog sama nijaay boo ñaa def ak moom lu ne léegi mënu maa def ci làmb lu ñu deful lu may def nag mooy delloo leen cër bi ñu ñëw gunge ma sama ay papa lu ñu amul dama leen jox cër rek jox leen yar ak teggin ñu bépp sama ginnaaw di ma ñaanal ndam comme ñëpp di defee am na mbëri Pikine yoo xam ne ñëwuñu ñu ngi ci biir ñu ngi jàpp ñu ngi ñu ñëpp benn la ñoo bokk ndey bokk baay mais boo ñaaw Fatma li muy laaj waaw. mais gisuñu ko fi sunu frère la ñu koy ñaanal jàpp mais gisuñu ko fi booy ñaaw. xam naa it yi ak bagages yi. non non non est-ce que du voisinage bi. est-ce que demul Fuuta sax dem génn ci sarax yeeg yooyu. booy ñaaw ci affaire bi ci bagages yi ñëpp ñoo far buur ñëpp ñoo fa ay frère la ñoo bokk tey bokk baay. man ah. sama wërsëg kenn mënu ci dara. sama wërsëg am kenn mënu ci dara. Ama Baldé wërsëgal kër bu dara suñu borom mooy maye bu leen bu leen bu leen kii dafa na rek mun naa ñun ñëpp ñoo bokk ndey Ama mi ngi ci biir mi ngi jàpp mi ngi ci contact yi mi ngi ci xeex bi dem na wuti sëriñ mi ngi ñaan mi ngi def lépp ñu ngi sant yàlla bu baax a baax très bien très bien caam yàlla xam nañu su ma la naxul amoo dara lu ma la dégg nga jëm arène nationale muy site boo xam ne lamb ju mag bi ñu fa dooraal lan ngay dénk sa supporter sa côté ak côté Lac de Guiers 2. waaw supporter yi li leen xam nañ ko boo ñu ñëw yar ak teggin maa ngi nuyu waa team Boy Niang mafia bi waa team Boy 100 pour 100 Boy Niang maa leen nuyu bu baax di gis naa taxawaay ak sama fans sama fans club nekk Gambie mafia bi yëpp gars yi bëgg naa kontaan naa bu baax a baax a baax ma ci wax xam nga lu ne mën naa waa bu baax a baax maa ngi nuyu waa Tëngéej bu baax kontaan naa bu baax a baax a baax maa ngi nuyu ñëpp ku doon lim damay jiw gaay di nuyu waa di nuyu waa bidéo ba waa Ndayane waa Ndomdo sama bopp yaa bi ma tam delu ma ñëw ci diggante ak Pape Sarr la ma ñëw man dama dugg ci détail yooyu waaw mais ñëpp ci ngeen sama papa la Pape Sarr sama papa sama mag la da nga bëgg ñaan waaw dama dugg ci détail maa ngi ñaan ñëpp jàmm rek yaa ngi dégg li ma mën a wax mooy maa ngi woo waa kër Cheikh Mansour Sarr Abi waa kër Cheikh Mamadou Fadal di nuyu waa kër sëñ Abdou Karim di nuyu waa kër sëñ Afia Mbacke moom sëñ Fall di nuyu waa Tivaouane bu baax sama dëkk maa leen nuyu baax waa Tivaouane waa daal wax waa Touba Baye fàttewuma leen maa ngi nuyu ñëpp daal combat bi ñëpp ñu ci nekk waa AS Pikine du bi yokk la jëriñ ko comme ni ñu koy waxee bi nag lii yëpp na ngay ñëw fii ñu def ambiance ñu fecc ñu defar mu neex lépp baax na mais lu am solo mooy doo jëm ci combat bu am solo ñu ñëw ci géew bi def fulla def fayda def jom kone maa ngi nuyu Isaaka Diop monsieur le maire ñëw na yeneen monsieur le maire suñu papa suñu lépp Thierno Ndamba ñëw na mi ciy jàpp Siré Dia suñu papa Cheikh Ilim Louma suñu suñu mag suñu lépp Abdoulaye Timbo sama papa maa ngi nuyu ñëpp am na ñoo xam ne samay xarit lañ maa ngi koy nuyu baax Thiam bilaay ñoom ñëw nañu xam nga man Idy bépp maa ngi nuyu ñëpp daal sama papa sama famille papa Mansour Mbaye sama famille papa Mansour Mbaye ñoom ñëpp ñëw nañu maa leen di nuyu di leen bu baax a baax a baax sama benn xarit boo xam ne fii la dëkkoon man bu ma fii moom moo doon jaay ñu koy wax Idy di ñaa xam nga bëgg boo ñaa sonn ci man bu baax Idy Idy maa ngi koy ñaanal suñu borom xale ko àjjana bu baax a baax a baax ñu koy masawu di mi nga xamante ni mooy waaw Ousseyn Top ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sama papa Fass Mbary wax ni mënul tëj fi ñëw boo ñaa masawu na la loo fi daj ak loo fi dégg mun axane la ñaa masawu na la maa nuyu waa ga Cheikh Mafou lu waa Casamance di nuyu Aliou nuyu ñëpp suñu limee dañuy ñi nag awma seen fay sama papa maa ngi koy nuyu bu baax Pape Diop Basson sama Paa la papa Paa Paa dimbali sama papa Idda Fall sama papa maa ngi nuyu ñëpp maa ngi gërëm ñëpp jërëjëf bu jeexee jeexee